bu ñu toll donc nañ ci bàyyi xel mu nekk li nga xam ne lu am solo sànq yaa ngi wax léegi euh, si beneen thème bi nga xam ne fa lañ jëm yaa ngi ko wax mhm. mooy euh, maanaam Rita dafa mool dafa kii donc si loolu si foofu lañu jëm il est magnifique mhm. kawteef dañoo def benn euh, article bu am solo ñu tuddee ñu tuddee ko audacieuse audacieuse et sexy girl quand le divorce change nos stars non voilà ok. déglu <laughs> le mariage c'est pour le meilleur et le pire hélas beaucoup de couples ne tiennent plus en compte cet adage surtout nos célébrités c'est la raison de plusieurs divorces en s'intéressant sur la séparation de nos célébrités kawtef.com fait le point les ex aux oubliettes et place au new look loolu benn cas la sa veut ko que xool leen ñoom ñëpp a bële. xale yi ah, macha allah xanaa xamul liberté dafa neex. benn. liberté. Mhm. dafa neex. mais c'est quoi amul lay contrôler. toggoo yàqoo. ça ce n'est pas une liberté c'est du libertinage. ah c'est du. libertinage. <laughs> liberté dafa am ak libertinage. Ah, libertinage nag ñoom gëm naa ne ñoom bokkuñ ci libertinage peut-être liberté boobu waaw voilà. man man daal man sama mot bi ma ko bëgg bi ma ko bëgg a waxee. ah d'accord naa ak yow ci liberté bi voilà continue. liberté dafa neex. Hmm. liberté. Euh, dafa neex benn doo ma ko zoomal tuuti ma xool xale yi xale yi tamit benn nañ de. toggoo yàqoo rosi xeeñu la gaz xeeñu la. leneen ak leneen. Eh, eh, xeeñoo eh, soble. waaw dafa naan benn point après àggale dem mooy ñëw. Euh, defar sa bopp ku xees ku si kaw. mu ngi sëy ak kee non non laa wax. waaw kee moom waruñu ko ci woon boole. Euh, rak rak ay dara moom mu ngi sëy benn bi mais mais mais maa yeewu. miyaa wax lu ko neex. maa ko wax mais Mia day wax lu ko neex Mia ba léegi célibataire la peut dafa am ñu bëgg bëgg dàq rek mais ba léegi célibataire la non non ni mu mel nii dina lambal boppam. Eh, du lambal boppam xanaa xamoo yow sëy dafa garaaw boo nee sëy naa boo góor ñi bëgg lu baax ñëpp te jigéen fi baax nag jigéen góor gu baax ngay ñaan. nañ ñëw si kii góor ñu baax ñëpp dañuy daw. ci laa nekk nii di. non non moo tax damaa ju man la demal. <laughs> demal donc. donc bu nee sëy sëyu sëy naa day dàq góor ñu baax ñi te ñun góor ñu baax ñi la ñuy wër di am déet. noon non a ah, ah, tout cas. je crois que Mia da doon kaf. liberté su ko waxee noonu kaf. mais kaf xale bee de délégué Amar wax nañu. ku mën a togg te te bërgi Dembo Ndiaye ñu leen ñu ko doon tuumaal tax suuf. voilà da nga koo fàtte. alors ah, xale bi ci kaw muy rakki moom moom mën na toog rakki ay dara madame Guèye. waaw moom délégué Amar toog na fi Guèye la. je pèse bien mes mots je sais pas de quel Guèye il elle parle du moins. yaa gën a xam ban Guèye mais xam naa la. Mhm. madame Guèye wala Guèye. est-ce que est-ce que waa Kawtef bi ah, ñu wax da nga ah. Guèye la wala Guèye madame Guèye wala madame Guèye xam nga. Guèye la Guèye la ñoo a nduroo. Dóora Guèye Dóora Guèye Dóora Guèye la ñuy wax. ah Dóora Guèye. kon tu. Dóora Guèye la <laughs> waaye madame Dóora Guèye. Dóora Guèye la. léegi. si si su su su lu gars wax dama ma liberté dafa neex. waaw. liberté dafa mm. neex doo togg doo yàq amul kenn ku lay sonal amul ku naan la heure bii nga war a dem heure bii nga war a ñëw mm-hmm. moo tax ji góor ñi la plupart da ngay dégg ñu naan jigéen mënul sëy sëyaat la mën jigéen mënul sëy sëyaat la mën waaw ah, parce que boo day am expérience bi te te te li gën a garaaw mm-hmm. xam nga benn oustaz doon na ko fi wax ñu jàppee koy caaxaan mais boo ko seetee ba ci biir dëgg la muy dara gënul garaaw nga wàcc koo xamante ni doyaloo ci moom ndax day gën a belli sa xol di gën a dagg hmm. wàcc koo xamante ni dalay leen danga ko danga naan naa ko bàyyi rek te xam nga xam nga góor ñi leenu gën a bañ hmm. jigéen bu ne damaa divorcé ñépp ay daw si yow loolu parce que ñenn ñi dañ naan ku sëy ba tas la plupart caga lañ lay tuddee hmm. nga baal ngeen baal ñu ci kàddu gi ku sëy ba tas caga lañ lay tuddee soit boo nooyee bopp góor ñu nooy bopp ñu jaar ci sa kaw jàll soo doonee ku wow kong ñenn ñi dañ lay takk pour juste euh, dama laa xemmeem naa la takk pour benn laps de temps après ma bàyyiwaat la nga dem am ci ñoo xamante ni nag dañ lay bëgg te yàlla rek te xam nga ñiy gàmmoog ñiy raas dem ñu benn mm-hmm. am na ñu baax na man léegi nag fi mu toll nii dañoo toll ci jaayu te nag ah wax dëgg yàlla kuy jaayu nag da ngay belli da nga jàpp ni fu mu toll ni ñoom euh, ku si nekk si ñoom fàtt na sa ex. dama ne jamono jii dañuy jaay fàtte moom waxuñu ko. parce que fii kenn ku ci nekk xam nga ni xol lu ci njëkk tëja. Hmm. waaw. Hmm. maa ko wax xol. Hmm. lu ci njëkk da cay të. Ah. moo xam lu bon la moo xam lu baax. gis nga sama maam da daan wax naan ñaar nit du ko fàtte. mu muy kilo njëkk a jox nga lekk ak kilo la nga dee putt waaw ki la jam ci putt nga dee kooku doo ko fàtte kooku damay fàtte kooku boo dee doo amul loo xalaat wala <laughs> ah, am na dee dee amul fenn boo dekkee ngay xalaat ku la jox ah, yow gëmoo ko ah, yow gëmoo ko <laughs> yow boo dekkee fële ngay dekkee waa xalaas loolu kooku c'est-à-dire la déggin la laaj woo na si teg tamit fase ku mool tamit doo ko fàtte déggoo ma de déggoo ma de loolu waxin la déggi la laaj maanaam ñaar ñii kenn du leen fàtte. ki nga hmm. xam ne dalaa def lu bon ak ki la def lu baax. dégg nga ma. Hmm. tey jii mën nga njëkk ci góor góor njëkk ci yow def la loo xamante ni tey jii day tax yow góor gu la romb nga jàpp ni kii nii la mel dootoo bëgg góor démb rek ñu ko fi wax man ak nooree hmm. waaye di nga di nga sëy ak góor mu wan la ji la teraanga ba yow da nga naan sax benn góor doyatuma budul kii est-ce que dégg nga ma. dégg nga wala déggoo ma danga naan benn góor doyatuma la Viviane doon way naan ku la ku la tàmm ba tam-tamal la ba tàmm la mhm. dootu la bàyyi xanaa ah, pikk ak foo mënti demit demit dikk demit dikk waaw nga yaakaar nii amul kenn ku ci demaat dikk déedéet man loolu waxuma ko de dama ne non damay laaj ci dama ne dama ne non xaar xaar dama doon expliquer fàtte mënul fàtte mënul am parce que xol lu ci njëkk te ca hmm. fàtte mënul am parce que xol lu ca njëkk des ca mais nag dafa am loo xamante ni ñun jigéen dañoo mën a wanewu nag dañ lay won ne la xam nga miyaa sax way na ko loxo bu la bàyyi loxo ngi taxaw mhm. te alalu ku sàggan ku farloo koy jël mhm. te jigéen ñi la plupart amaana ñenn ñi da nga leen di takk ñu bàyyeeku waaye boo leen fasee rek ñu daal di waat nag gën a mhm. jaajju yokku junjung yi loolu la rek te wax dëgg yàlla ñoom ñii ku leen gis xam ne dañoo belli ba pare dañoo gëjoon a génn nooy air pur moom sa bopp dafa neex de euh, moom sa bopp doo tàggoo mais bu la takkee da ngay mais baaxul de. ah mais ça dépend de. parce que am na sëy yoo xamante ni kaay man damay sëy je suis mariée. Mhm. et j'aime mon mari. sëy neex na. man ci man neex na wax dëgg yàlla parce que nag maa ngi sëy ki ma bëgg. Mhm. danga maa ah, laaj ah. dama lay tontu mais dama ne. dama ne bëgg dugg sëy quoi mooy laaj ndax sëy wax naa la su ma duggulee bu la su ma duggee bu neexee maa ngi leen joxe de. <laughs> déedéet da ngay xoolal ki nga bëgg gis xanaa xamoo moomoo sëy mettiwul. boo bëggee nit ki mu bëgg la rek mu leer la ni mbëggeel bu pur ngeen di dugg. et pourtant ñi ñëpp communication ñëw. pourtant ñi bëggoon nañ seen jëkkër seen jëkkër bëggoon na leen. dara wóoru non sérieux na ma. nit ki nit ki dina ne la bëgg. nit ko ko doo moom. dama ne nit ki dina ne ngir intérêt ah, sëy yi léegi jamono ji newuma c'est leur cas mhm. mais dama ne jamono jii ñenn ñi dañuy sëy pour intérêt naa sëy signé contrat benn contrat wu un mois naa sëy rek pour ne sëy naa amoon naa jëkkër pour am sama liberté bopp parce que déjà boo amagul jëkkër doon jànk ci kër gi bu dee say mbokk dañoo bëgg lu baax ah xam lu baax te di ko def rawatina nga foog bokk ci famille bu baax ñu ngi lay xalaatal yow de waroo taxawaalu parce que suñu kër gii lii xewu fi nangam ak nangam xewu fi cest à sol la ba nga xamante ni yow boo bëggee liberté dëgg danga daan naan xaaral ma dugg ci sëy bi pour pour pour comme li ma waxoon keroog ñu dévierge ma ma daal di dem nag mën a mën a am sama xàppi bopp am na ñoo xam ne defuñu ko sax ngir bon mais dañoo bëgg moom seen bopp free. ok alors que xanaa xamoo ki divorcé moo war a gën a woddu ndax xam nga lu gën a garaaw. Mhm. divorcé ak nit mu dégg ne yaa ngi ci tooxi doona wala yaa ngi ci loo xamante ni tey jii bu ko déggee say noon dinañ la ree moom ci sa jëmmi bopp dal dina la ree. xamoon naa ko lii la bëggoon moo tax nangu maa sëyal taxawaalukat la nangam ak nangam te fii ñaar ñu fi ànd taggante bu ñu tàggoowee jëwante ñaar ñu fi ànd rek ba kenn ku ci nekk naan bëgg naa diw ñoom ñaar dañoo bëggante seetlul saa bu ñu tàggoowee kenn dina génn weer moroomam. Mhm. léegi yow man question bi nga xam ne nii moom laay laaj te xam naa ne bokk internet yëpp yëpp moom la ñuy laaj. Mhm. moo ñoom ñii ñëpp ku si tas ba pare da gën a mool lan la lu <laughs> mooy problème c'est quoi est que loxo yu nekkoon moo baaxul. Mhm. voilà ñoom dañuy génn moom moo tontu naa la xanaa da bëgg ma waxaat. te man kat problème bi daf maa liberté moo neex. liberté kese la. liberté la. non loolu loolu. liberté réponse boobu kii te parce que yam yamul ak euh, kawteef sax dafa mel ni kawteef dafa mel ni xaw na si tontu parce que mu ngi euh, comme comme daf ni toute séparation est difficile mm-hmm. mais nos stars le vivent aisément du moins sur euh, ce qu'elle nous montre mm-hmm. à travers les réseaux sociaux mm-hmm. au Sénégal la tendance est la même léegi quand on est divorcé on se sa on, se on métamorphose du moins Et oui, beaucoup de célébrités ont radicalement changé après leur divorce. Mm -hmm. Soit elles sont plus audacieuses, mm -hmm. voilà, c'est ça, mot boobu laa bëggoon dire sax sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Soit elles sont extra mhm. sexy pour se venger de leur ex-conjoint. est-ce que ça vengeance la. mën na nekk loolu xam nga wax naa la ko sànq nee naa la des fois jigéen dina dina dina tooy tooy lu sax. Mhm. mooy mooy retard mu def faana pour wan ne bu la bàyyi loxo ngi taxaw instant bi maa ngi ci loxo yu wóor fekk billaahi am na ci ñoo xam ne ñu ngi souffrir ndax bàyyi nañ euh, kii ñu bëgg moo leen bàyyi. moo tax ñu génne ay son. dama ne am na ci laa wax. damay laaj ndax moo tax am ñeen ñu génne ay son daa kii duma la tontu ci loolu waaye mën naa laa laaj leen. Mm. ñoom ñii ñëpp nekk ci photo yi kenn ku ci nekk ba ñu tuddee sa divorce laataa ngay génn ndax deful ab diir. en tout cas divorce daal mën na lu ne. dama laa laaj. ndax tontu ma. vas-y ñoom ñii ñu def seeni photo ñëpp. Mm-hmm. Mia Racky euh, Bijou Ngoné Bijou Ngoné sax ba tey tane na. Mm-hmm. Bijou Ngoné tane na parce que. dafa divorce ñëpp wax sam après mu génn le lendemain def confrontation Bijou Ngoné du ko ci boole. Mm-hmm. mais Racky euh, Mia euh, ndaxte. ñoom ñëpp bi ñu déggee rumeuru divorce yi ndax dañoo jekki rumeur yi dafa génn rek ñu génn. wax euh, ci wax wala dañoo toog ab diir. non toog nañu ab diir. te ba tey Rita déggoo ko mu wax. mais waaw mais c'est la première fois wax nii noo ba tey waxul sax ci divorce am. ok dafa wax rek ni sénégalais ni ñu ma supporté sénégalais nangam ak nangam je suis fière d'être sénégalaise. Mhm. loolu la wax non. Mhm. voilà man dégguma ci lu mu fu mu fu mu tuddee waxu divorce am looloo lay wan ni divorce metti na nañu nekk. star yi gën a mag. Mhm. mais koo koo xam ne da ngeen a ànd. Mhm. yàlla bu mu njëkk ci yow. ngeen ngeen ànd tàkkali mhm. loolu dafa metti est-ce que dégg dafa metti moo tax buñ ne ñoom dañ koy dund aisément parce que. mbir mi dafa dafa dafa yéeme parce que comme ni ñu koy waxee mbott moo xam la ca dégg ba mu muy nuur ba ca ban ba mm-hmm. kenn ku ci nekk yaa xam ni ngay jooyee sa sa naqar yaa xam ni nga koy fajee am na ci ñoo xamante ni dañuy weet jooy ba seen xol sedd bu ñu paree maquillage génn diw seen tiñ ba ba mu nooy fotow mbaa ñu def seen i vidéo mhm. am na ñoo xamante ni vidéo yooyu ñuy def wala image yooyu ñuy wane mhm. moom mooy def moom mooy euh, c'est-à-dire dégager li metti ci ñoom xam nga keroog maa ngi koy wax fii mais bàyyiwu leen ci xel mhm. am na ñoo xamante ni pour seen mer wàññeeku foog ñu sinap dugal TikTok dugal Snap dugal ci réseaux sociaux yi. Mhm. nit ñi di leen wax ñu mën a ñu mën a gën a am confiance ci seen jëmmi bopp. am ñoo xamante ni dañuy wéet jooy fu kenn nekkul. Mhm. bu ñu paree maquillage def leneen ak leneen bari na fi gis nga divorce ku la ne méttiwul dalay nax. méttiwul si ñii de. Ah, loolu nga foog. ñii moom ñi ma gis moom méttiwul si ñoom. loolu nga si rek ay dara. <laughs> méttiwul si Rita méttiwul si ndaxte. méttiwul si nga xam ne pourtant pourtant rakk keroog bi mu bi euh, moom moo nekk kan kan moo si topp sax. pourtant keroog rakk bi mu bi mu ñëpp a gën a bél ñëpp a gën a mool. waaw dama voilà merci Marianne Marianne nee na uh-huh. si. elle avait écrit maanaam Rita waxoon na si waxoon na si ak divorce donc man peut loolu ah, dafa ma aussi loolu voilà alors en tout di ñaanal bu baax a baax. Euh, yàlla defal leen lu gën si ñoom. dama ne te tamit yàlla mayaat leen ay jëkkër yu baax a baax yoo xam ne ñoo gën si yéen seen yëre jëkkër yi. bu fekkee tamit yàlla dafa dogoon ñu demoon a delluwaat seen jëkkër yàlla na yàlla delluwaat leen seen jëkkër yi. <laughs> dama ne. Hmm. Racky pourtant keroog bi mu invité euh, ndaxte. ni hmm. nga ko naan ndax def nga sa dëy parce je tenais vraiment à poser cette question parce que damaa xam li ci divorce ak ni mu méttiwee di nga weet jooy di nga def nangam di nga def nangam ndax yow def nga sa dëy mhm. ndax ne ko lan ndaxte ne ko man xam nga des fois nit dina dund loo xamante ni di ko wax di ko ñaxtu mais moment yi nga xam ne ci la noppee waxatul ça veut dire ngay ma ngay demaat ci émission ba doon def. xam nga yéen a ngi ko dégg mu naan dama wax dama doon ñaxtu ba mujj gi damaa noppi waxatuma. mu ne ma moment yooyu noonu ci la nit ki di def dëyam mooy que nii naa ko bàyyi libéré ko bàyyi ko mu def lu ko saf après man su ma sonnee dem dem sama yoon. voilà elle a fait elle a fait son deuil. merci beaucoup kon voilà loolu loolu la ko ndaxte tontu. moo tax ñoom bu defee seen dëy ba pare bu ñu ñëwaatee dañuy gën a mool dañuy gën a belli. waaw parce que mën na lu nekk divorce nekk te mun na lu nekk Sénégal da ngay divorce gën a mool Euh, bu la takkee nag xamuñu kon jigéen yéen a yàpp yéen da gën a mool te bu leen takkee ngeen commencé sol ay robbu ay rob yu kenn xamul ay rob 300 ay sër ay panti yéen yéen ngeen responsabilité bi la ko yéen ngeen yàpp ko yéen góor ñi ngeen yàpp yéen la plupart responsabilité bi ci yéen la déglu ma ku fi moo gii dañuy takk koo xam ne da lay leer ni ku siiw la yaa ngi ko xamee ci tiktok bi yaa ngi ko xamee ci série yi yaa ngi ko xamee ci théâtre bi yaa ngi ko xamee ci way bi nga takk ko ne ko doo dootoo way dootoo sinap dootoo tiktok dootoo sol doo too def nangam doot c'est-à-dire tere ko tere ko ba moom dalay xeeb. nga nekk meer. ah nga nekk meer ci saa si del muuru muuru sax kenn terew ko parce que lu baax la. parce que yàllaa ko dégg. boobu daa rëcc boobu sa xol la jógee. dégg non non loolu mais dafa am loo xamante ni tey jii gis nga buñ nee jigéen ñi dañoo bàyyeeku nañ xool lu tax ñu bàyyeeku. donte nag cautionné wu ma loolu parce que nag wax dëgg yàlla dangay jamb ba mu saf. jambal ba mu saf. Marianne. Marianne ah. benn mari sans mais nag mais ah non, mais. Attends, yéen attends, yéen am na jigéen ñoo xam ne man nana nana yow yow man d'accord wax ak yow man ak yow ah, dafa naa rek maa ngi ñëw sëy parce que xamoo ci dara ci dara yow loo xam dañ la ko wax moom mooy xas nat sama sama xarit yëpp lay sëy kenn ki day takk lu huit ñaar dañuy takk lu huit kenn ki takk lu neuf hmm. man mi xam naa ah. lu dix laa na takk euh, non Marianne attends euh, gis na jigéen am na jigéen ñoo xam ñoo ngi sëy am doom ba amaat doom boo leen gisee da nga yaakaar ne sëy ñu parce que à chaque fois ñoo ngi toppatoo seen bopp ñoo ngi defar seen bopp am na yeneen jigéen ñoo xam ne problème bi mooy boo leen takkee bu ñu amee si kër gi 3 mois commencé nañ bàyyeeku ba nga yaakaar nii ay mère lañ donc ça dépend si yow nan nga mën a toppatee sa bopp am na jigéen ñoo xam dañoo tayal am ñoo xam ne fu ñu tëdd seen jëkkër mun a dem ba wàcc. wala ba 11h. yow leen di fekkaat lii moom lii moom wax dëgg la ko xamul wax dëgg ah, la baax na am na xale jigéen yoo xam ne. Hmm. Euh, mu laa lay wax. même laal bu ñu tëdd. pour ñu laal ko sax. Hmm. problème la loolu moom ak la moom loolu moom. waaw dafa nekk rek moom moom dañ koo tàmm ca bañuy jànk te dañoo war a xam ne jànku ak jéegu du benn. doo bàyyi ma àgg déglu ma doo bàyyi ma àggale parce que xam nga arrangé wu leen dinaa la bàyyi nga yeggale mais ñenn ci góor ñi da am ak ñoom doom mu leer la ni doom ji yéen a ko bokk bala nga ko doon xam tey jii doom ji màgg ba tekki maay sa baay di di di di di dëngal loosa ki dëgëral baat te musuñu koo fag musuñu koo aayoo ne na yow la nu koy bàyyeel yow yaay togg yaay yàq yaay fóot yaay paase yaay yor doom ji guddi bu yeewoo yow la ay naxal sa doom ji waay. loolu yëpp jéggi di ko dund waa léegi mën na ànd ak gis nga kuy jooy du nax kuy jooy mënoo boole nekk ci waañ beeg nekk ci liggéeyu kër gi ba pare bëgg ne da ngay da ngay da ngay bànneexal ki ki ki la takk loolu mënu nekk c'est impossible. kon li ngeen bànneex bi ñaar ñoo ko. kon na ngeen bëgg maanaam. ah non non attends attends loolu loolu loolu loolu argument. merci beaucoup na ko wax ak Simon tamit loolu la wax euh, Marianne ak Simon ay vrai féministe lañu je crois que Simon moom fi jigéen la je pas je crois mais. Marianne ah, vrai la mais attends dama ne ah? waaw euh, euh, du question maanaam dangay ngay hmm. togg. Hmm. da ngay yàq que du mën a toppatoo sa jëkkër. waaw loolu. Hmm. affaire question de programme la. question de euh, emploi du la. gis jigéen. maanaam da xam yow yaay kan. xam lu nekk ak heure bu ñu def. sa jëkkër balaa muy wàcc war na la fekk maanaam yow nga defar kër gi ba pare. ba solu ba jekk ba mag yow ba def li eh, def. defar naa ay waay du gogo dugg duggagoo nag eh bis boo duggee di nga xam man mënumaa wax ak yow. waaye di nga woo fi benn marié jéeg jéeg lu mu salte salte salte. Mhm. góor gi moom bu soxlaa far force lal bu tilim ak darab bu tilim ak ñoom xooluñu moom kay dañuy def ba pare nag doog doog lay sikkal. pourquoi mun a bàyyi ko def. déedéet dama lay la mënumaa débat ak yow parce que parce que xamoo xamoo la ca biir. mais ma mais nag la ko bënn nga ca biir. mais Marianne Marianne il t'empêche même de porter sur les réseaux sociaux. Ah, mais mais loolu loolu pour aar la. loolu yow lay dimbali lu tax ngay dugal sa TikTok lu tax ngay nangam gis nga nañ ñu bàyyi ñu free nañu bàyyi jigéen ñu ñu free. mais loolu du question de free de. lan la kon. est-ce que est-ce que tey sa jëkkër ne la. waaw yow doo poster sur les réseaux sociaux. loolu da la empêcher. te réseaux sociaux. on parle des artistes de. Oh, euh, non non waxuma ah, personnellement ah na si. on parle de cadre général. d'accord fu mu toll nii. d'accord dama ni. Mhm. dama ni. i mhm. sax xam nga ni. Mhm. la fekk que tey jii yow nga am sa jëkkër. waaw nga solo ba nice. xaw ma def say make-up def lépp. waaw euh, sinap. dugal sur les réseaux sociaux. góor bu la si gis. góor bu la si gis. waaw mu apprécier war mu wax loo xam ne nii war la ko wax. dafa naa nga xuma loolu de. góor bu la si gis mu apprécier mu xam ne nii. Mm. war mu wax loo xam ne war la ko wax. yow ku jénk yow ay bàkkaar nga siy jëlee sax nga loolu ah. bàkkaar nga siy jëlee kon bàkkaar yomb na di xamoo loolu laay léegi laa yaa ko yombal bàkkaar moom waa laajte déglu ma <laughs> yow mii yaay laajte ji yow jàngi waatal jàngi waatal ah, moo bëri wax rek wax wax ji ngéwale nga jàpp ni jànguma de toogal dama ne xoola laajte ku la neex déglu ma bu fekkee da ngaa jàng laajte ku la neex moom xale bi jigéen bu jël waxuma la sax moom moom jigéen dafa am sag tey jii jigéen bu nekk bëgg nga suñ la muuree nga dem sa yi même bu dee sax do daanoo posté bëgg nga say mbokk di la gis ci jàmm di xam na yow yaa ngi xàpp yaa ngi dund ak sa sa jëkkër mbëggeel bu bu bu dëggu <laughs> loolu cest à loolu sagu jigéen la loolu duñ ci wax parce que jigéen moo bëgg di sagu su solee yére bu rafet nit ñi xam ne sol na yére bu rafet te des fois nga gis tabaski ñëpp poste wala korite ñëpp ñëpp posté seeni statut mhm. léegi yow sa jëkkër ne la bul posté xam nga nit ci bari dañuy jàpp ne yow <laughs> dangaa amul loo sol te nit amul lu dul sagam te <laughs> la plupart góor ñi dañ lay fekk yow nga yor sa compte TikTok wala nga yor sa compte boo xam ne réseau euh, ci réseau sociaux yépp ñu ne la doo danga koy bàyyi te te da lay leer ni bañ maanaam ba ñuy doxaananteeg yow ñoom moom d'accord nañ ci nga posté. parce boo amoo woon jëkkër mais nga am jëkkër parce que amoo woon jëkkër mais boobu da nga am gis nga fii nit am na jëkkër ma wax la tey lu leer nit am na jëkkër postewul kenn gisu ko ci réseaux sociaux yi te mi ngi def lu li ki posté dul def ki ci réseaux sociaux yi ki dul fës ci réseaux sociaux yi mi ngi def lu li kooku dul yi xam nga lan la. Mhm. jomb jomb tey rek bi may ñëw am na ko ma romb mu ne ma. ni ma la billaahi dama laa nopp ma ne ko jabaru jàmbur nga nopp c'est-à-dire tontu wax la ak tontu baat la ak tontu am na loo xamante ni nit ki bu la ko waxee xëy na des fois ñu ne nit ki yow yaa koy may kanam bu mu la ab bu mu abusé ci yow wala bu mu nangamee. Mhm. mais am na ñoo xamante ne dañoo audacieux. Mhm. am na ñoo xam ne ni ñu lay abordé rek mooy njëkk a incorrect waaye yow da ngay incorrect ànd ak. ñoom jërëjëf Simon Simon nee na li nga esati Mm-hmm. du waa koñ bi wala waa mbedd bi ñoo ko moom mais pour sa jëkkër la. déedéet déedéet loolu d'accord ma somboon jërëjëf ah, somboon loolu eh, moom d'accord ma parce que jëkkër joo xamante ne day wàcc fekk si la ah wax dëgg yàlla man bu ma naree posté pour sama jëkkër gis ko xanaa ñu soree bu ñu soree wee sax mën naa koo yónnee vidéo bi en privé loolu moom wax dëgg yàlla je pas d' mën nga poste <laughs> pour sa waa kër ak ñi nga xamante ni peut-être parce que nag foo am ku la bëgg am na ku la fa bañ. am na ñoo xam ne dañ ñëwoon moo jëkkër ji dañ ko da koy nag moo far wii nii kii di du ko takk kii la teral la waaw boo sëyi jee nag war nga koo wan ne ko ngi bëgg maa ngi xàppi. waaw d' mais sa jëkkër ji la takk moom wax dëgg yàlla boo sañ sewee. alors xëy lu neex. bu ñëwee war nga ko koo wan.